Jërëjëf moo kii Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV mardi 21 ci atum ñu xëy ñëw ak ci journalu sunu lamb fekkati fay affiche solo Salba décortiquer les chocs de samedi prochain Baye Mandione ak ki nga xam ne moo di xoyantaan Baye Mandione devant favori par ki nga xam ne moo di xoyantaan Assis Ndiaye à pas notre priorité du seen priorité sax day waaye ba tey mën nañoo jàpp ne ki nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye de day bu jugee xam ne moom moo di Bombardier korwaase ki nga xam ne ni moom moo di Eumeu Sène door a jàll ci leneen lu muy jàll waaye ba tey ki nga xam ne nii day moom moo di Boy Niang 2 bi xëy na ci ñaaw le géant de Pikine ginnaaw ba Cheikh Bawal taane ki xam ne nii moom moo di le géant de par avertissement waaye ki xam ne nii moom moo di Boy ba tey journalu sunu lamb bu xëy moom moo Tine titre roi des arènes Tapha Tine balisé son sem waaye ba tey journalu sunu lamb bu xëy fesal ko ci xëtam mu ne fàng te gën a yaatu moom Tapha Tine moomee day mu takkaay singooram yor bëjjënam doole koog di bàkkoo waaye ba tey journalu bu xëy jàll ci ñoom ñaar ñooñee Tapha Tine ak xam ne ni moom moo di Boy Niang 2 andi ci ay leeral yu am solo Gris Bordeaux en patron le CNG itam journal bi xëy na ñëw ca seeni kàddu waaye ki xam ne ni moom moo di li di Cheikh Ndiaye sappe xëy na ci ñëw waaye organisation le reporter de la presse presse en ligne ñoom ñooñee tey ginnaaw ba ñu defee li nga xam ne nii moom moo di lambu ci journée ki nga xam ne nii xam la lu ni mel ca seen bëgg-bëgg ak li nga xam ne nii moom mooy la leen war ci boobu lay combat waaye diggante Tafatine ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang 2 day journal baa nga xëy di ñu fàttali leen moom Tafatine moomee day bisu combat boobee mobilisé na day mobilisation bu doy waar def une forte délégation waaw bawal yëpp topp ci ginnaawam waaye bravo a la sécurité ñi nga xam ne nii ñoom cant ak ngërëm na leen journal bi xëy jàll ci ki nga xam ne nii moom moo di Tidiane Faye le professeur retrouvé à la classe moom Tidiane Faye moomee day dellu si waat na ca classe bi nga xam ne fa nekkoon de fatigue ñoom journal ak sunu làmb xëy na ci dellu si waaye bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jalgati làmb ñoom ñaar la fay fekk de ñoo doon daje dimanche 19 décembre ci atum 2021 moom Tapha Tine la muy xamle la mu ba tey a puus rek ci biir géew su ma ne leen lu waaye waxoon na ca dellu boo ca delloo di nga am lu la metti loolu te naqari la yéen ñi koy seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Baol TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dale Cees xombal bambay altundañ gal maag sew kabaak laañaar kër daama kër saer jàllondun ak patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kol dala ba siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lamb ak Baol TV mbokki Sénégal mbokki bitim réew bàyyi leen bis bu rëy bi ñuy waaj le 16 janvier ci atum 2022 sur Assane Ndiaye njiital Baol Production mbokki actualité lamb bool TV